mbokk yi seetaan Senclic mu ngi leen di nuyu gannaaw bi ñu sant yàlla subhaanahu wa taala julli ci sayduna muhammad sallallahu alayhi wa di leen balu àq ci korité bi ñu jóge di ñaan ci yàlla subhaanahu wa lépp loo xam ne jaamu nañ ko yàlla ci biir koor gi ci ñaan ci jàng alquran ci saraxe yal nañu ko yàlla nangul ñaan yàlla mu may ñu ñu fekkee ko ay at yu bëree bëree bëri ñaanal sunu réew mi jàmm ñaanal ñi nga xam ne ñoo yenu réew mi ñaanal sunu kilifa diine yi ñaanal njaboot yi nga xam ne ñoo ne ci xat-xat ñu ne ci cellule prison yi moo xam dañu tooñ ñu yóbbu leen fa wala ñu tooñ leen yóbbu leen fa ñu ñaanal leen yàlla yàlla yóbbu delloo leen ci seeni njaboot ñaanal ñi nga xam ne ñu ne ci hôpitaux yi ci tawat yal na yàlla saafara leen ñoom ñëpp ci barke weer wi ñu jóge waaye ci barke alquran waaye ci barke ki nga xam ne moom lañ wàcce alquran ci moom mooy seydul wujudi muhammadun sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi leen di ndokkeel ñëpp caméraman yi nga xam ne ñooy koy filmer ak ñi nga xam ne ñooy liggéey ci site bi ñoom ñëpp yal na yàlla defal leen tawfiq ko defee gannaaw loolu nag ñu dellusi ci sunu waxtaanu diine yi te nag ñu indi benn tem tuddee ko adduaaw te mooy wàjju li wàllu ñaan mu mel ni bu ñu ne ñaan dinañu ci taxaw tuuti lan mooy ñaan bu ñu paree dinañu am teggiinu ñaan ndax lu nekk rek boo ci dugg danga nga war a xam teggiin yi mu laaj ndax dañu wax ne inna duaa ñaan ibadatun min ajali l ibadati allati yataqarabu biha al abdu ila rabbihi wa qurbatun min afdali l qurubati dañu wax ne ñaan jaamu yàlla la d'abord bokk na ci jaamu yàlla yi gën a màgg ci jaamu yàlla yi yi nga xam ne nit da ciy jaar pour jege boromam bokk na ci yi nga xam ne itamit màgg na màggaay boo xam ni moo tax ñu ne wa duwaaw miftahun li kulli xeyrin maanaam ñaan mooy caabi lépp loo xam ne yiw la rek caabi ji mooy ñaan waaye wa mixlaaqun li kulli sharrin ñaanit mooy tëj lépp loo xam ne safaan la wa majlabatun li kulli nafin te mooy xëcc lépp loo xam ne njëriñ la ñaan a koy indi wa dafun li kulli durrin mooy jëñ lépp loo xam ne lu waroon a lore la wa kama an al insaana yusaabu ala alsalaati walsadaqati walxajji walsawmi kadalika yusaabu ala adduaai sawaan xaqaqa lahu maa yuridu aw lam yuxaqiq fa kullama rafaca addaaci yadayhi ila alsamaai qaa'ilan ya rabbi ya rabbi usiba ala duayhi dañuy wax ne doomu aadama ñi nga xam ne dañu koy fay day am yool ci julli ci saraxe ci aj ci woor naka noonu dafay am yool buñ koy fay ci ñaan gi moo xam la mu doon ñaan yàlla nangul na ko ko danañ ko ci fay moo xam la mu doon ñaan yàlla nangulul ko ko dana ko ko fay lu tax mooy ndax al yonent bi sallallahu alayhi wa wax ne addu'a huwa al ibada maanaam ñaan boppam mooy jaamu yàlla beneen bi ci des mu waxaat ni du'aaw silaaxul mu'min te mooy ñaan mooy ngànnaayu jullit moo tax ibnu Xataab dafa waxoon ni inni la axmilu xammal ijaabati walakinni axmilu xamma du'aayi fa ida uhliltu du'aau fa inna al ijabata maahu mu ne moom yoonam nekkul sanam yitte bi muy def ci maanaam lay nangu ñaan gi moom du ko toppatoo mu ne moom li muy def mooy yitte bi mu def ci ñaan gi c'est-à-dire bi muy def ci ñaan gi moo koy yitteel waaye ñaan nga nangu nag lu ko nangul yoonam nekku ci ndax nag nee na ki am yitte ci ñaan nee na yitte ba muy def moo koy won ne ñaan gi dina nangu ñaan nag ku ñaan rek yàlla nangu na ko benn ci àddina la mu jox la ko wala mu dencal la ko ba ëllëg waaye jullit bu ñaan yàlla rek yàlla ñaan gi nangu na waaye ñun nag dañuy ñaan ba noppi jàpp ne ñaan gi nanguwul lu tax gisoo résultat bi moo tax ñaan dinga ñaanal sa bopp ñaan gi yàlla xaar ba sa njaboot yàlla nangu ko ci njaboot gi wala nga ñaan loo xam ni da ko soxla woon yàlla gis ne loolu baaxul ci yow mu dindi ko bañ a ba bañ a yegsi ci yow su boobaa nag da ngay jàpp ne kon ñaan gi nangul fekk ne ñaan gi nangu na dafa am lu la loo xam ne moom la yàlla puusalee li waroon a ñëw ci yow safaan mu dindil la ko loolu moom julli bu nekk war na di ci bàyyi xel adduwaawu ñaan boobu wax nag ibadatun jaamu yàlla la alquran moo wax ni qaala rabbuk wa qaala rabbukum udcuuni astajib lakum inna alladina yastakbiruuna an cibaadati sa yadxuluuna jahannama daaxirina suratu gaafir alquran moo wax ni seen boroom de moo ni udcuuni na ma ñaan astajib lakum na ma ñaan ma may leen na ngeen ma woo ma wuy leen mu ne ñi nga xam ne dañu réy réylu ci jaamuma te mooy cest di ma ñaan ñu ne ñoonu danañ jugu jahannama yàlla nañu ci yàlla musal moo tax jële nañ ci benn saxaaba bu tudd Nu'ma bun Bachir mu wax ne qaala qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam inna al ibadatu suma qara wa qaala rabbukum uduuni astajib lakum yonent bi al Bachir mooy wax ni Nu'man bun Bachir moo wax ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ni inna duaa naka ñaan huwal ibaadatu mooy jaamu yàlla bi mu waxee loolu ba noppi la jàng aaya bale wa qaala rabbukum ud'uuni astajib lakum kon jaam ñaan ci boppam jàmm yàlla la gannaaw bi ñu xamee ñaan nag ñu indi teggiin yi nga xam ni mooy teggiin yu ñaan mbokk yi ñaan dafa am teggiin dinañ ko lim benn par benn duaa luhul luhu aadaabun adduaa lahu aadaabun bokk na ci tegginu ñaan bi ci jiitu an yatajannaba alxaraama makalan wa mashraban wa malbasan bokk na ci teggin pour sa ñaan nangu ñu ne nanga nga moytu lekk lépp loo xam ne dafa xaraam wala nga sol loo xam ne dafa xaraam wala nga naan loo xam ne dafa xaraam kon d'abord bi jiitu ci yi nga war moytu yow kii ñaan mooy lekk lu xaraam naan lu xaraam sol lu xaraam dinañ ci indi tegtal ci xadiisu sayduna muhammad an abi hurayrata radiallahu anhu an qaal qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yaa ayuha annaasu inna allaha tayibun laa yaqbalu illa tayiban wa inna allaha amara ala almuminina amara almuminina bima amara bihi almursalin fa qaala yaa ayuha rusulu kullu min altayibaati waamalu saalixan inni bima taamaluuna alimun seyduna muhammad moo wax ni yàlla ci boppam yéen nit ñi yaa ayuha nnaasu ee yéen nit ñi inna allaha naka yàlla tayibun ku teey la laa yaqbalu du nangu mukk illa tayiban lu dul lu teey c'est-à-dire yàlla dafa teey kon yàlla lu tey rek mooy dem ci moom wa inna la naka yàlla nag amaral muminina digal na jullit yi ñi gëm yàlla lan la leen digal bi ma amara bihil mursalin li mu digalit yonent yi moom la digal ñi gëm yàlla fa qaala yonent bi wax ne nag yaa ayyuha rusulu ey yéen yonent yi kullu na ngeen lekk min at-tayyibaati ci li tey wa amalu ngeen jëfe nag saalihan yiw inni naka man yàlla bi ma taamaluuna alimun alimun bi ma taamaloon xam naa li nga xam ne moom ngeen ji jëf wa qaala mu waxaat beneen yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yaa ayyuha allazina amanu ey yéen ñi gëm yàlla kullu mina tayibaati ma razaqnaakum lekk leen ci yu tey yi nga xam ne moom lañ leen wërsëgale bi mu waxee loolu ba pare su ma mu tudd moom yonent bi arajo la góor goo xam ne yutilu safara ku tukki bu gudd la nekk as ashaasa axbara yamudu yadaahu yadayhi ila samaa'i yaa rabbi yaa rabbi wa mat'amuhu xaraamun wa mashrabuhu xaraamun wa malbasuhu xaraamun wa gudiya bilxaraami fa annaa yustajaabu li daalik yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi muslim moo ko solo bi bi mu waxee aaya yooyu ma wax léegi dafa tudd benn góor boo xam ni ci tukki bu suri la jóge kawar baa ngi poussière nee na mu tàllal loxo yi nag di ñaan ne yaa rabbi yow sama borom te moom mu tàllal loxom di ñaan li mu lekk dafa xaraam mataamuhu xaraamun li mu lekk dafa xaraam wa mashrabuhu li mu gannaaw bi mu lekk ba pare dafa xaraam wa malbasuhu xaraam li mu sol dafa xaraam wa xudiya bil xaraami li mu lekk yépp dafa xaraam fa anna yustajaabu li dalika mu ne kooku nan la yàlla nangoo ñaanam kon bokk na ci li tax naan gi mën a nangu mooy fexeel bu lekk lu dagan bu lekk lu xaraam bul naan lu xaraam waaye bul solit lu xaram kon nag jullit bi danga war a fexe lépp luñ la wax ne lii boo ñaan nii ngay ñaanee nga fexe bu góorgóorlu ci kon teggin bi jiitu ci ñaan mooy fexeel ba yow mi ñaan nga lekk lu teey lu lew waaye nga naan lu lew te teey waaye nga naan solit loo xam ne dafa waaye bëgg a ñaan détourné kees solu ba jekk lekk ci naan ci ba pare ñëw ne da ngay ñaan yàlla du la nangul sa ñaan ndax la nga lekk dafa dafa dafa teeyoon boobu mooy bu jiitu bi ñaareel bi al yaqiinu kii gannaaw bi nga lekkee lu dagan naan lu dagan sol lu dagan nee na booy ñaan nag al yaqinu mooy nga am certitude an yataakkada wa yatayaqana an allaha taala sa yastajibu duaaka te nee na mooy nga am certitude ci ne yow miy ñaan nga am conviction ne yàlla dina la nangul ñaan bi te jële nañ ci abi hurayrata radiallahu anhu qaala qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa wa antum muuqinuuna bil ijaabati waalamu anna allaha laa yastajibu duaa man min qalbin gaafilin laahin yonent bi dafa wax ne bu ngeen di ñaan seen borom na ngeen am kóolute ne yàlla dina la ñàngul ñaan gi mu ne na ngeen xam ne yàlla ci boppam du ñaan du nangu ñaanu koo xam ni bi muy ñaan xolam dafa sàggan xolam dafay fo c'est-à-dire nga ñaan ba pare di am dut ci ne ñaan gi dina nangu wala du nangu kon booy ñaan jàppal ne naan gi danga war a am certitude yaqiin te mooy al yaqiinu te mooy nga am kóolute ne yaa ñaan la nangul ñaan bi muy ñaar kon jàppaleen ñaar bu njëkk bi wax naa ko mooy lekk lu dagan naan lu dagan sol lu dagan ñaari bi mooy nga am kóolute ne yàlla dina la nangul ñaan bi ñetteelu point bi ci teggin yi mooy al ixlaasu lillahi taala nga sellal nag ndax dafa bokk wamin min suruti wa min charti li qabuli ay duaa dafa bokk ci chart pour yàlla nangul la benn jaamu yàlla boo bëggoon a def pour yàlla nangul la ko fokk nit ki sellal ko moo tax alquran wax ne fadu laaha muxlisina lahu diina walaw kariha alkaafiruun suratu xaafir mu ne na ngeen ñaan seen borom waaye bu ngeen di ñaan na ngeen bokk ci ñi nga xam ne dañu sellal walaw kariha nag alkaafiruuna donte ñi nga xam ne ñoo gëmul yàlla dañ la dañu weddi jële nañ ci sahl bun xunayf anna nabia sallallahu alayhi wa sallam qaal man saala allaha alchahaadata bi sidqi balagahu laahu manazila suhada wa in maata ala firashihi yonent bi dafa wax ne képp koo xam ne danga ñaan sa borom pour nekk martyr te ba nga koy ñaan sa xol moo ko dëggal nga am certitude gëm ci loolu ngay wax nee na yàlla dina yi la yéege yow mi doon ñaan pour nga nekk martyr doonte da nga tëdd sa kaw lal génn àddina c'est-à-dire boo ñaanee ne yàlla maa ngi lay ñaan yàlla nag ma def martyr te bi nga koy wax sa biir xol moo jàpp loolu nga wax dañuy wax ne même boo dee sa kaw lal dañ lay boole ci ñi nga xam ne da nga am wàccuwaayu shuhada yi te mooy martyr yi yàlla nañ ci yàlla boole ñeenteelu teggin bi mooy atadarru fi duaa te mooy booy ñaan nag da toroxlu toroxlu mooy delloo sa bopp sa borom nga xam ne sa borom moo la moom te mooy sidqul lujui ilallahi subhanahu wa taala mu ne dëggu ci li nga xam ne mooy ngay jox sa borom subhanahu wa moo tax alquran ma wax ne udhu rabbakum na ngeen ñaan seen boroom waaye nag tadarruan wa xufyatan innahu la yuhibbu almu'tadin mu ne na ngeen ñaan seen borom waaye na ngeen toroxlu bu ngeen koy defit ngeen def ko ci ci lu nëbbu ndax yàlla subhanahu wa taala bëggul ñi nga xam ne dañuy jéggi kon ñeenteel baa ngi noonu juróomeel bi mooy alxusuu fi duaa alxusuu te muy nga boole ci ragal yàlla al xushuu la budda an yakuna qalbaka xaashian lillahi sa xol na ragal yàlla li anna nabia sallallahu alayhi wa sallam qaala waalamu anna allaha laa yastajibu duaa min qalbin gaafilin laahin al yonent bee ko wax nee na na ngeen xam ne yàlla du nangu benn ñaanu koo xam ne xolam dafa nekk ku saggan di fo kon na nga xol bi na ànd ak ragal yàlla subhaanahu wa taala kon boobu mooy juróomeelu point bi naka noonu itamit benn ci taabiina yi kama jaa an ahadi taabiina qaala anna aalamu mata yustajaabu duaayi fa taajaba annaasu wa qaalu lahu kayfa dalik qaala innama yaxshau qalbi wa tadmau ayni wa taskunu jawaarixi waaw déggal saxa taabii bi li mu wax taabi'i dafa wax ne man xam naa su ma ñaan sunu koy nangu danaa ko xam nit ñi yëpp jaaxle maanaam man bu mën naa ñaane yàlla nangul ma ko ñu jaaxle lu tax mu wax loolu mu ne ko kayfa zalik loolu naka la ma nekkee taabii ba ne inna innama yaxshawu qalbi saa yu sama xol ragalee tiit dellu ci sama borom ma ragal ko ñaareel bi mooy samay bët rongoñ di génni waaye sama samay yaram yëpp sama sama yaram yëpp ne tekk nee na ca lay xamee ne sama ñaan gi dana nangu xool nga boo nammee ñaan yooyu yëpp danga war a fexe mu daje ci yow xool bi na ragal na rongo ñi génni cër yi na ànd ak dal loolu dafay bokk ci li tax ñaan gi nangu juróom-benneelu point bi ci yi nga xam ne mooy tax ñaan gi nangu mooy ixfaau duaa booy ñaan nga wax ko ci suuf xam nga di ñaan di yuuxu ñàkk xam la kon ñaan bi gën a gaaw mooy boo koy def nga def ko ci suuf moo tax way soba bu umuman ixfaau li te dafa bokk ci loo xam ne sax dañ ko sopp ci ñëpp te mooy même loo xam ne naafila la boo koy def nga nëbb ko naafi bi ëpp doole mooy bi nga xam ne da nga ko nëbb adama izhaari yi nga bañ ko feesal moo tax ñu wax ne fa salaatu naafilati fil bayti afdalu maanaam julli naafila ci sa biir néeg moo gën mu ne wa salaatul fardi fil masjidi aw jabu julli nag farata ca jàkka jar moo gën a war moo tax ñu ne kon sa sopp nañ ci ki nga xam ne mooy ñaan mu fexe ba ñaanam gi mu mu def ko ci nëbbu c'est-à-dire benn nga wax ko ci suuf wala nga tëju moo tax mag ñi bu ñu doon def seeni ñaan yi nga li ñu tuddee xalwa te xam da ngay dem tëju tëju boobu ñu tëju nag mooy bañ kenn gis la loolu mooy xalwa bi waaye façon bi ñu koy defee léegi nag bokkul ak léegi eh, ni ñu ko doon defee xalwa mooy da ngay tëju di jaamu yàlla di naafila di zikr loolu mooy xalwa ak ñaan yaa ngi koy boole. kon moo tax al alquran wax ne udhu rabbakum tadarruan wa xufyatan innahu la yuhibbul mu'tadin comme niñ ko waxee ci ay bi passé léegi beneen bi ci des mooy wa qad dakara allahu fi kitaabihi nabiyan kariman radiyallahu an fiilihi wa dakahu wa huwa zakariya xoolal yàlla ngi tudd benn yonent boo xam ni yàlla dafa gërëm la mu def lu tax mooy moom yonent yàlla zakariya ndeysaan dafa wax ne is naada rabbuhu nidaan xafiya ba muy woo boromam woo boo xam ne woo bu suufe la c'est-à-dire dafa wàcce baatam wax ak boppam wax ak boromam subhanahu wa taala ndax ki ngay waxal nekkul ku tëx koo xam ne boo xalaatee sax mu xam li ngay xalaat kon boo koy ñaan wax ko rek ci suuf beneen bi ci des wa nabiyu sallallahu alayhi wa sallam yaqumu min alleyli yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafay jóg guddi ida galaba ala dannihi an aishata qad naamat yafraqu ila salaati saailan rabbuhu mustaghfiran wa yatajihu ila baqii algarqa garqadi yadcu hunalika lil amwaati ndeysaan sallallahu alayhi wa sallam yonent bi nee na da doon xaar bu guddi bu njortoo ne saydatina Aïcha tëdd na ba nelaw bu ko defee nee na mu génn nag commencé di julli di ñaan boromam njéggal bu ñaanee boromam njégal ba noppi nee na mu génn dem ca baqia fa ñu suul ñi génn àddina dem ba foofa guddi di ko ñaan xoolaal ndegam yonent bi mooy def loolu guddi nga xam ne moo tax loolu looy def rek nga def ko ci secret da ci am solo lool te mooy mu julli guddi ñaan boromam njéggal ba pare dem ca baqi al qara eh, ñaanal leen yàlla yàlla jéggal leen kon loolu bokk na ci teggi ñaan juróom-ñaari mooy istiqbaalul xibla di ñaan jublu xibla ci teggiinu ñaan la bokk jublu xibla moo tax ñu ne yustaabu li shaxsi an yastaqbila qiblata inda duaihi mu ne sopp nañ ci nit ki booy ñaan nga jublu xibla ndax am na ay xadis yuy tegtale ne booy ñaan dangay ngay jublu xibla ala na ala anna nabi sallallahu alayhi wa sallam kaana yastaqbilu xiblata axyanan léeg-léeg bu doon ñaan day jublu xibla kama xadasa yowmil badr comme nam ko defoon ceeb ba ñuy dem xaswatu badr jour boobu la sayduna muhammad ñaan ñaan gi mu ne allahumma in tahlik hadihi l isaaba laa fi l ardi ko wax ni wa ma wa madda yadayhi mustaqbila al qiblata xata saqata ridaahu ala min ala mankabihi bésu bi ñu nekkee ci xaswatu badrin yonent bi sallallahu alayhi dafa jàkkaarloo xibla gi cest à mu jublu xibla mu wax ni yow sama borom ñii nga xam ne ñooy ñu groupe bu ndaw bii te mooy ñi nga xam ne ñooy ñi gëm yàlla boo leen seetaane ba ñu rey leen ba ñu alak alku ñoom ñëpp ñu rey leen mu ne kenn dootu la jaamu ci ko suuf si tàllal ñaari loxo yi nag jublu xibla di ñaan di ñaan di ñaan boo kaala gi daanu ci suuf dégg naa sax ñu ne abu Aboubacar moo jël kaala bi tegaat ko ci bopp bi ne ne Seydina Muhammad yàlla dina nangu sa ñaan kon loolu day tekki ne Euh, mën nga ñaan sa borom fekk yaa ngi jublu xibla donte nag am na yeneen xadis yoo xam ne nee nañ nit ki mën na ñaan bañ a jublu xibla ndax mooy xadis bi nga xam ne kaana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqulu allahuma aslih lii diini alladi huwa ismatu amri waslih lii dunyaaya allati fiha maashi waslih lii axirati allati fiha maashi wajcal xayaata ziyaadatan lii fi kulli xayrin wajal mawta raaxatan li min kulli shar yonent bi daana ñaan-ñaan bi te daaw ko def rek ci jublu xibla c'est-à-dire dañ la bëgg a wax ne moo jublu xibla moo gën waaye même boo jublu xibla mën nga ñaan moo tax mu ne yow sama boroom yàlla nag ma yéwénal sama diine bi nga xam ne sama mbir yëpp ci laa ko aj waaye nag ma defaral sama àdduna bi nga xam ne ci lay dund c'est-à-dire nag ma defaral sama àddina waaye defaral sama àllaaxira waaye nag sama àllaaxira ba nga jëm ba ma jëmit waslih lii axirati allati fiha maadi kon yàlla yonent bi dafa ñaan na sama borom maa ngi lay ñaan sama diine bi nga xam ne sama mbir ci laa mooy diine bi nag ma ko defal muy diine bu jub waaye nag addina bi nga xam ne ci lay dund nga xam ne mooy suma dund ndax nag addina dañ fi indi pour ñu liggéey fi nga xam ne fi lay liggéey maa ngi lay ñaan yàlla mooy yéwénal dund googu beneen bi ci des mooy àllaaxira ba ma jëm nga xam ne mooy sama delluwaay ëllëg maa ngi ñaanit nga yewenal ma fa mu ne wajaale xayaata ziyaadatan lii fi kulli xeyrin bés bu nekk li may ñaan mooy sama dund yokkute ci yiw yàlla nag moo defal wajaalil mawta waaye nag maa ngi ñaan yàlla nga defal li nga xam ne mooy génn àddina te mooy dee raaxatan lii mu nekk noflaay ci man min kulli sharin ci musiba bu nekk yàlla ñu yàlla defal ñaan googu juróom-ñetteelu point bi te mooy bastul yedday ni te mooy nga tàllal ñaari loxo booy ñaan da ngay tàllal sa ñaari loxo yi naan allahumma allahumma boo gisee ñaari bu ñuy naan noonu ñuy def loolu nag moo gën ndax sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam daana ko def jëlee nañ ci xadis boo xam ne suleyman salman al farisi moo ko nettali jëlee ko ci yonent bi inna allah xayiyun karimun yasta'i isa rafaa rajulu ilayhi yadayhi an yorad an yoradduhuma sifran xaainatayni yonent bi dafa wax ni salman alfarisi moo ko netti nee yonent bi yàlla ci boppam ku bari kersa la beneen bi ci des ku tedd la waaye yàlla am na kersa ci ab jullit tàllal ñaari loxoom yëkkati ko di ñaan boromam yàlla di ko delloo zéro cest à boo tàllalee sa borom loxo di ko ñaan na nga xam ne yàlla du la delloo zéro il faut mu nangul la ñaan bi yàlla ñu ko yàlla defal beneen bi ci des mooy kii ñaan booy ñaan nga ñaan ci turu yàlla yi boo ko mënee nga ñaan ci turu yàlla yi ndax alquran loolu la wax walillahi al asmaul xusna fad'uuhu biha suratul araf mu ne booy ñaan nga ñaan ci yàlla ci turam yi ndax alquran moo wax ni lillahi yàlla am na al asmaul husna ay tur yu rafet yi kon fad'uhu na ngeen ñaan bihaa ci tur yooyu masalan ngay wax ne allahuma inni asaluka bi asmaika al husna wa sifatika al ula wa an tuwaffiqani lima fihi al xayra fi diini wa dunyaaya nee na booy ñaan nga ne allahuma yow sama borom maa ngi lay ñaan ci sa tur yi gën a rafet ak sa melokaan yi gën a kawe nga dëppale ma ci lépp loo xam ne mooy yiwu àddina ak bu àllaaxira yàlla nañu ko yàlla defal moo tax bokk na ci tur yooyu booy ñaan nga xool ñaan boo xam ne moo dëppoo ak sa bëgg-bëgg maanaam koo xam ne dangay ngay ñaan wërsëg da ngay jël allahumma nii yow yàlla yàlla nag ma may wërsëg moo tax warsuq naa wa anta xayru raziqin te si yonent yàlla Isa moom la ñaanoon yonent yàlla isa ba muy ñaan dafa wax ne warsuq naa yal na nga ñu may wërsëg wa anta yow yàlla ru raziqin yaa gën ci ñuy joxe wërsëg beneen bi ci des mooy bu fekkee ne da ngay ñaan yàlla jéggal la say bàkkaar in arada maxfirata zunubi bu fekkee ne dafa bëgg nag say bàkkaar yàlla jéggal la ko dangay wax qaala kama qaala Moussa da ngay wax comme na Moussa waxoon ba muy ñaan dafa waxoon ne anta yow sama borom waliyuna faxfir lana war warhamna wa anta xayrul xaafirin yow sama borom yow yaa ñu moom yaay suñu lépp yaay suñu kilifa yaay suñu buur yàlla rek mooy buur kon faxfir lana yàlla nag ñu jéggal naa yàlla nag ñu yërëm wa anta yow yàlla xayrul xaafirina yaa gën ci képp koo xam ne dafay jéggale bàkkaar beneen bi ci des mu ne weyn araada shafaa bu fekkee ne danga nga bëgg a yàlla saafara la da wax comme la yonent bi doon wax kama qaala annabiyu sallallahu alayhi wa sallam allahumma rabbi nnaasi muzhibal ba'si ishfi shaafi wala shifaa illa anta shifaun laa yuxaadiru saqamun nee na yonent bi daana wax ne allahuma yow borom bi ya moom nit ñi yow yaa fi dindi tamit ak njàqare mu ne kon yal na nga saafara te yow nag yaa mën a saafara beneen saafara amul budul yow saafara boo xam ne beneen feebar du ci teg tege kon booy ñaan it ci tur yooyu ak yeneen turu yàlla yi nga xam ne yàlla latiif a ngi fi boo buggee lutful ilaahi boo buggee yàlla defal la lutfu boo buggee yaa xafiisu yaa kaafi yaa rahmaanu yaa rahimu yaa shakuru yaa mujibu yooyu tur yooyu yàlla yooyu yëpp nga jël benn ba benn bu ci nekk la nga xam ne mooy sa soxla nga ñaan ko ci tur yooyu ndax daam loo soxla ci say àddina rek am na ci tur yàlla yi kon jëlal ci tur yooyu nga am boo xam ne moom ngay jël dig ci ñaan sa borom njëggal bu dee ne njëggal la bu dee wërsëg la bu dee eh, ubbeeku la yëpp yaa fattaxu yëpp ci tur yàlla yi la bokk yàlla ñu yàlla boole ci ñoom beneen bi ci des mooy iksaaru min adduaa wa taazimu ragbati fi ma inda allahi bëriloo ñaan nag mais ñun nag ñu ñu baal ma yéen caméraman yeeg ñëpp ak ñi mel ni man noonu lañ mel c'est-à-dire ñun bala ñuy ñaan rek ñu am problème nit nag dañu wax ni comme dañ la wax ne jaamu yàlla dafa ci bokk lu ñu tuddee adduwaaw ñaan la ñaan jaamu yàlla la kon yow nga am lu neex nga am lu naqadi nga am jafe-jafe nga ñàkk am jafe-jafe yëpp dëkkal ci di ko ñaan ndax yàlla ki nga xam ne bu amee lu neex ñaan bu amee lu naqadi ñaan kooku dina toll foo xam ne ba lu ko dalati rek bu ne allahuma yàlla nangul ko ko ndax moom jàpp na ni am na ñoo xam ne nag bala ñuy ñaan rek ñu jaaxle maanaam ñoo xam ne dafa mel ni dañuy jëm a nax yàlla te loolu euh, fan yi nga xam ne ñu ngi jëm ci wàllu examen ñi def bàkk ak ñëpp am na ci ñoo xam ni instant yi moom ñu dem ci jàkka yi du julli yi di tàllal loxo di ñaan ku ñu gis ne ñaanal ma waaye nag bu fekkoon ne booba euh, avant examen yi dañ doon ñaan seen borom di julli ji naan te ñaan dafa am moment ko boo xam ne loo ci ñaan yàlla nangul la ko xam naa danañu ñëw ci heure yi nga xam ne moom la ñuy gën a bëgg nga xam ne loo ci ñaan rek yàlla nangul la ko bokk na ci diggante bi nga jullee ba bi nga ba nga ne boo sëlmale ba pare profitool ñaan loo fa ñaan yàlla nangul la ko ak boo sujootee ndax nit ki fi ngay gën a jóge sa borom mooy boo sujootee kon yooyu yëpp eh, eh, palaasu ñaan la beneen bi ci des wa kaana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yuksiru min haza doa yonent bi demoon na ba benn ñaan boo xam ne même boo demee màkka ñaan boobu bu fekkee ne mokkaloo yeneen ñaan yi boo yeboo da nga jàpp ci ñaan boobu ndax ñaan bi mooy ñaan bi nga xam ne mooy motal lépp loo xam ne moom la doomu aadama bugg ci àddina ak moom la doomu aadama bugg ci àllaaxira moom moom la ñaan bii di wax rabbana atina fi dunia xasanatan wa fi l axirati xasanatan wa qina azaba naar rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa la lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab xool nga lii boo demee Màkka te mënoo ñaan yële boo yeboo nga jàpp ñaan bi fu ñu dem nga ñaan ñaan boobu beneen bi mooy nga xam ne mooy bu mujj bi benn point bu mujj mooy adamul istijaal bañ a yàkkamti xam nga wolof mooy def ba saxal mbaa ma sulli la c'est-à-dire mooy yow da ngay ñaan ba pare ni daar daar daar daar la la na am kon yii jëlee nañ ci xadis boo xam ne abu hurayrata moo ko wax an rasulallah sallallahu alayhi wasallam qaal yustajaabu li ahadikum ma lam yaajal mu ne dinañu nangul kenn ci yéen su ñaanee yàlla nangul ko ko feeg yàkkamtiwul yaquulu moom muy wax ni qad daawtu man ñaan na fa lam fa la fa lam yustajib lii maanaam nga ñaan ba pare am man na ñaan na waaye gisuma dara te loolu ñun noonu lañ mel sénégalais rawatina sénégalais nañ ma baal sénégalais mooy ñaan ba noppi ne man ñaan naa ba sonn waaye dafa mel ni yàlla nangul sama ñaan bi déedéet ñaan ñaar yoon ñaar moo ci am yow bi ngay ñaan xamoo ñaan li ngay ñaan ndax gën na ci yow wala gënul ci yow yàlla nag boo xamee ne lii ngay ñaan gënul ci yow mu bañ la ko jox su boobaa nag yow mi ñaan bu doon ñaan boo gàttee xel da wax ne yàlla nangulul ma ko par exemple kiy def examen. yàlla xam na ni examen bi waa ji bu amee BFEM ren boo watul ci suuf nawet bi du ko fi fekk yàlla dindil la loolu échec loola bu ko defee nga ne man bëggoon naa te ñaan naa yàlla mu bañ ma nangu te xam na yàlla xam na ne am BFEM bi walla bag bi gënul ci yow ndax xam na ne boo amee bac doo ko fekkee kon loolu tax mag ñi buñ doon ñaar dañ doon naan yàlla lii maa ñaan su fekkee moo gën ci man yàlla nag ma ko defal ca anam bi gën a rafet su fekkee ne du ko lu gën ci man it maa ngi lay ñaan nga soppil ma ko ba muy lu gën ci man nga defal ma ko noonu la ñu ñaanee waaye yàlla jox ma rek yàlla jox ma kon bu ko defee point yooyu dañ waxe ne moom la ñu indi rek ci laaya biir ci ñi nga xam ne ñooy seetaan eh, seen bi di ñaan rek yàlla nañu yàlla defal tawfiq yàlla nañu yàlla boole ci ñi nga xam ne bu ñu ñaan yàlla yàlla nangul leen waaw ah, lépp lu ñu ñaan ci jeetaay yéeg yëpp yàlla nañu ko yàlla nangul yàlla am na ko mën na ko yàlla nañu ko yàlla defal bu ko defee ñu gërëm ñi nga xam ne ñooy caméraman bi mooy keebaa ak ñi nga xam ne ñoom lay jàppalanteel ñoom Souleymane di ñaan ci yàlla rek yàlla na yàlla gën leen a yokk site bi yàlla na yàlla yóbbu ko ba muy nekk télévision yàlla mën na ko yàlla ko yàlla def wa ma dalika ala lahi bi asi wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.